mu lay nuyu bàyyi nga nuyu ko mbokk na ñu ngi leen di nuyu. di leen ziyaare di leen balwaax. ñaan yàlla ñu yàlla boole baal. lan ngay wax ci taxawaayu Gabriel kan ak don yi nga xamante ni indi na ko si ah Gabriel kan moom don yi mu indi am na solo parce que ndimbal mënta ñàkk nga yóbbu ko fu baax baa nga yóbbu ko fu bon waaye nga yóbbu ndimbal. ci hôpital maam Abdou Aziz Dabakh kan mooy maam Abdou Aziz Dabakh mooy ki daan nitu jàmm ten nitu jàmm nitu teraanga nitu yiw nitu barke kon bu jëlee ay ndimbal yóbbu ko foofu dafay doon lu rëy doon lu rafet doon itam lu jekk ci ñun waaw ndax ci li la war ki la ko defal war nga koo sant gannaaw ñun la waroon nag mu defal ñu ko dañ koy sant kon jaajëf gis nañ bagage yi yëpp ci téléphone bi bi ñu ko wane wax dëgg yàlla bagage yu bëri maa ngi defoon te as bagage la as bagage laa ko tegoon waaye nekk ab bagage bu bëri la waaw tabaarakallaa loolu moom defe naa mën nañ caa jëriñu lu yàgg yàgg yàgg yàgg doo ko soxla leneen ko defee loolu moom euh, ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax mu gën koo mën at mu jot yàlla na ko gën a man yàlla na ko gën a mën yàlla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 nga foofee ca diwaanu eh, Casamance kon diwaanu Sénégal ak li ko wër nit kàngoog kii daal mooy ki yàlla may ci wàllu pajum cosaan ak aada nekk fi lu dul dimbali doomu aadama yi